alors tey yëglekaay yi li ñu xëyee tey jii Cheikh Diop euh, lañ ci àndal euh, Cheikh euh, dañ koy tàmbali ak l'observateur n'est-ce pas. Nathan noonu la ñu koy dooree ñu door ko ak l'observateur l'observateur dikkaat na bu baax a baax ci lu ñeel li nga xam ne itam marine nationale bi daal dina koy fokkati ñenn ci ñu ko doon jéem a rawale mun ñeel ñetti tonnes yu cocaïne wax nañ ñu itam la nga xam ne moom moo tukkee ca ña nga xam ne ñoom lañ ca jàpp lu toll ci fukki doomi aadama yoo xamante ni teg nañ leen loxo ba noppi itam daal dañu xam ne moom moo di ca parquet lu toll itam euh, téléphone yaak euh, benn doom bu euh, chef d'état boo xamante ni mingi ngi sous-région bi lañ na rek moom moo jiite mbir yooyee supposé financement occulte bu Ousmane Sonko le grand malaise du ne mel mënees ko ba tey ci li nga xam ne moom moo di page 3 bu l'observateur l'observateur dikkaat na bu baax a baax ci wàllug politique ba tey ak itam xalifa Ababacar Sall ci la jamono itam taxawaay wi nga xam ne daal na koy am ci ci euh, langue gi ñu attali wax itam ci lu soxal mbirum people xam nga ne euh, groupe wile di action force kuy fàttali ko Oscar des vacances yàgg nga dégg euh, seen tur ak itam jaloore wa ñu doon def suñu ay naataangoo yu l'observateur dem nañu leen seeti ca Tëngéej ga ñu nekk daal di séq ak ñoom li nga xam ne moom moo di waxtaan waxtaanee nañu wàllu làmb ci li nga xam ne moom moo di l'observateur kàddu yi nga xam ne moom bombardier daal dina ko yëkkati ginnaaw rëkk rëkk site moom mooy nekk ak dernière cible ay kàddu yoo xamante ni moom moom moo ko daal di yëkkati ginnaaw l'observateur ñu yër beneen. Mm, ñu xool beneen euh, journal Cheikh ñu wéy ba tey ci enquête. ñu wéy ci li nga xam ne moom moo di enquête enquête dikkaat na ci euh, lu ñeel li nga xam ne itam moom moo di yenn ci ay dëgg yoo xamante ni euh, daal na ko yëkkati moom Ismaïla Sako le peuple a la le dos à Assimi kàddu yoo xamante ni moom moo ko rek daal di fësal mi ngi ci li nga xam ne moom moo di yéenekaay bi. Mm, ginnaaw enquête Cheikh dañuy dañuy xool beneen yëglekaay le quotidien le quotidien ñëwaat itam ci euh, les libéraux rêve de Wade maanaam libéraux yi ñu ngay gént ki nga xam ne euh, moom moo fi nekkoon njiit bu réew euh, président Abdoulaye Wade ñu xool beneen yëglekaay Cheikh ginnaaw la quotidien aywa ñu dem le soleil ñu dem ci le soleil euh, national le soleil national dikkaat itam ci li nga xam ne euh, moom moo ñeel kàddu yu njiit mu réew daal di yëkkati une euh, refonte pose maanaam leneen ci loo xamante ni itam bëgg nañ koo jooyantiwaat bu baax a baax moom njiit bu réew bu Sénégal daal dinay càmbar bu baax a baax li nga xam ne moom moo di diggante Europe ak itam Afrique yenn ci ay kàddu yoo xamante ni itam ñeel na wàll wi bu ñu ko jëmmalee la mu bëgg dina antu mi ngi ci li nga xam ne euh, moom moo di le soleil national ginnaaw le soleil national beneen ab yéeni kaay bu addu ci leneen mm, ci leneen muy libération libération waxtaanee na bu euh, baax a baax euh, lu soxal mbirum li nga xam ne moom moo di Sonatel soxna naata buñ ci dikkee daal dinay addu liñ ko traqué dal di ëpp benn milliard ci suñu ay koppar mënees ci bile yéeni kaay ci dikkaat nu mu gën a yaatoo waaye itam jàppal ne ca diwaan bu Kër Massar cadre bu euh, euh, recherche daal di euh, saisir lu toll ci ñaari milliards ci suñu ay koppar lu ni mel itam di ay billets noirs mënees ko ba tey ci li nga xam ne moom moo di libération ginnaaw libération beneen ab yéenekaay ñu dem xool suñu naataango yu nekk ci tribune. ñu dem xool suñu naataango nekk ci tribune ñoom nag dikk nañ bu baax a baax ci lu soxal wàllug wér gu yaram lenn ci loo xamante ni itam mu ngi sooxe ci wàllu kër docteur ñoom itam daal nañuy xaatim tënk ko ci li nga xam ne moom moo di ñaari ponk ay ponk yoo xamante ni euh, dikkaat nañu ci euh, bu euh, baax a baax lu soxal coowal suuf mënees koo liir ba tey ci li nga xam ne moom moo di tribune daañu ci dikkaat ci li nga xam ne moom moo di ñaareelu pàcc. Mm-hmm. incha allah Cheikh laata loolu ñu xool beneen yëglekaay Walf Quotidien. mu di Walf Quotidien bu Sénégal jaloore bu bi nga xam ne itam moom la ñu jot a fësal ci ginnaawam ki nga xam ne moom moo di maître Cheikh Niass directeur général bu Walfadjri la mu xamle moom moo di nag ligue boobe dafa génn ci aw waxtoom Euh, ñu xool ginnaaw Walf Quotidien beneen réglekaay lu mu xëyee les échos. les échos dikk na bu baax a baax ci li nga xam ne moom la Ousmane Sonko di euh, sàkku ci état bu euh, Sénégal mu ñeel lenn ci loo xamante ni itam ay ndàmpaay la Sonko réclamé l' état lu toll ci mille deux cent cinquante milliards mille deux cent cinquante milliards yooyu nag soxna naata daal nañ koy amal ci aw pàcc yoo xamante nii moom Ousmane Sonko dikkaat na ci wax itam ana lan moo tax mu doon laaj loolee mu mel ni nag suñu ay naataango yu. ñu Les Échos euh, daal nañu tënk lu ni mel ci lu tollu ci euh, juróomi euh, ponk waxtaane nañu lu bëri ñu daal di ci jukki as lëf bokk na ci 750 milliards en guise de réparation pour le préjudice matériel et moral leneen itam loo xamante ni ñeel na yooyu le milliards dikkaat nañ ci bu baax a baax 500 milliards à titre de dommage ak itam intérêt pour lui leneen ci loo xamante ni itam ay ponk la daañ ko gën a faram-fàccee ci ñaareelu pàcc yi mu ñeel ñaari ponk ya ca des. Mmh, ci kanam lay doon balaa loolu ñu dem ci laas. ñu dem ci laas laas itam dikkaat bu baax a baax yenn ci ay kàddu yoo xamante ni itam daal nañu koy yëkkati ci xët bu njëkk wile bokk na ci Jimo Soumaré affiche de grande ambition lenn ci lu ñeel ay bëgg-bëggam taxawaay itam fii ci réew bu Sénégal. ñu xool ginnaaw laas beneen yëglekaay lu mu xëyee tey. aywa ñu dem ci li nga xam ne moom moo di euh, bés bi le jour bés bi jour nag moom aw dossier la ñu euh, baaxee mu ñeel élection yu représentativité yi xam nga ne euh, fukki fan ak ñaar ci weeru décembre la ñuy amal yooyu la jongante question centrale la rek daal di dippee lu ni mel ñi nga xam ne ñoo war a séq boobu la jongante la ñu war a natt itam ci téeméer boo jël sonaata lépp mënees koo liir ci li nga xam ne moom moo di bés bi le jour ginnaaw bés bi le jour beneen ab yéen kaay. ñu xool ko Cheikh Vox Populi. ñu àddu ci li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, Vox Populi Vox Populi dikkaat euh, bu baax a ci campagne li nga xam ne moom moo di njaayum gerte wi ña ci yëngu itam lenn ci loo xamante ni ñeel seen ak bëgg-bëgg Vox Populi dikkaat na ci bu baax a baax gros nuage sur les huileries nationales rek daal di dippe lu ni mel waaye itam waxtaane na lu soxal lool ñi nga xam ne ñoom ñoo di aji góorlu gi di yokkum légume ak itam li nga xam ne moom moo di jën bi jàppal ne benn yaboy mu ngi ci lu tollu ci 400 euh, jàpp 600 euh, ci li nga xam ne moom moo di euh, suñu ay koppar kaan yi kenn waxaale wu ko mi ngi ci benn boo jël 100 francs lay jar kilogramme bu li nga xam ne moom moo di kanj wi nag dem na ci ñetti téeméer ak ñaar fukk soxna naata beneen ab yéen kaay bu ñu yër benn lay doon. doy na waar source a la ñuy xool Cheikh. waaw suppu kanjaa ngi <laughs> <laughs> ñenn ci ñi ko bëgg xam naa ne euh, seen xel dem na ci euh, la ñuy euh, ficc si seen koppar. pour togg ko pour togg ko sunu naata <laughs> mu doon doy waar. ayca Cheikh ñu dem ci source A xool li mu xëyee tey ci mardi bi. la mu xëyee bokk na ci mbirum li nga xam ne itam moom moo di crédit mutuel koppar yi nga xam ne itam daal nañ ko fay jël boobaak léegi coow li mu ngay wëy ba tey keneen koo xamante ni jot nañu ko teg loxo bi la yoon nag moo nekk ñetteel bi doomu aadama woo xamante ni itam laale na ci boobule Maranatha. ñu xool ginnaaw source a euh, le témoin lu ñu def seen xët bu njëkk. le témoin li mu def ci seen xët bu njëkk bokk na euh, ci lenn ci loo xamante ni itam moom njiit bu réew bu euh, Sénégal daal dina koy delloo njukkal ki nga xam ne nag moom moo di président lu ñeel wàllu libéralisme fii ci tundu Afrique xel dem ca ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Wade. ñu dem xool le témoin ginnaaw si. beneen yëglekaay muy Sud Quotidien Sud Quotidien lu ni mel itam la rek euh, daal di euh, xëyee moom ak euh, témoin bokk nañ la ñuy wax lu soxal itam union sacrée mu ñeel wàllu populisme radicalisme ak itam extrémisme lu soxal wàll woowee nag moom njiit mi appel bi nga xam ne daal na koy def lépp itam dëxëñ nañu ko ci li nga xam ne moom moo di Sud Quotidien ginnaaw Sud Quotidien beneen ab yéenekaay bu ñuy àddu soxnaata mm, ñu xool muy tàggat yaram record record ak itam seve jamono yi nag fa muy football nga yëngal bu baax a baax euh, question itam euh, daal di taxaw mu di aw bomb boo xamante nii ndax itam mënees nañu ko indiwaat ci li nga xam ne euh, moom moo di Coupe d'Afrique yu nation yi laaj la woo xamante ni yenn ci borom yi xam-xam daal nañu ci indi ay tontu kii bu waxee lii keneen ci itam wax la ca des daañu ci ñëwaat ci ñaar ñaareelu pàcc bi sonaata. Mm, incha allah beneen yëglekaay stade. Sadio Mané sol na costume taxawaay taxawaayu patron fa nga xam ne itam foofee lay joué Mané ñancoo moo nekk ci li nga xam ne. Euh, moom moo di xët bu njëkk bu stade beneen ab yéenekaay bu ñuy yër bokk na ci. Mm, moom la ñuy tëjee sax sunu làmb. Euh, sunu làmb bombardier lu toll ci ñeent fukki at ak juróom-ñaar moom rëkk-rëkk itam am na fanweeri at ak benn moom B52 euh, dina rek daal di laale ak ndaw loo xamante ni bëri na cëfër cëfër lool. Mm. mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di sunu làmb page cinq moom moo daal di dëxëñ la nga xam ne itam moom lañu ca xaatim pàcc wu njëkk wi ñeel li nga xam ne moom moo gën a fës ci li yéenekaay yi xëy fësal soxna naata ñaareelu pàcc wi daañu dikkaat itam gën ko faram télévision Futur Média. incha merci beaucoup Cheikh ci